bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna ma yanfacuna wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatanaa wa ilayhi nushur ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala nu ngi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew mi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokku Ibrahima Dramé mbokk yi ñu bokk sant yalla bi léegi moom mi ñu wërsëgal may ñu kado bi tollu ni nelaw te ñu jóge ko di ko def ci waxtu yu néew ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ñu ne ñu képp ku yàlla wërsëgal ba nga jëfandikoo kado bi yàlla jox jaami mu doon kado bi nga xamante ne bu du wutoon mbaaxu yàlla ci jaamaam amul kenn ku ñu koy jox ndax xamuñu ko ba ñu di ko jëfandikoo kon mbaaxu yàlla suñu borom tabaaraka wa ci jaamaam yi moo ñu baaxee kaddu bi ni mu doon kado boo xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko baaxee mu nekk kado boo xamante ne kado ju am solo la ndax moom lañ ñu baaxee ci alquraanul karim ci suratu naba mu ne ñu wa jaalna nawmakum subaatan man yàlla maa leen may maa leen yénkeewal jox leen kado ju noon ñu naan nelaw nawm ngir bu ngeen ko nekkee di ko def ngeen di ci am dolluwaay bi nga xamante ne dangeen ngeen ci noppaleku noppaleku bu toll ni keneen ku dut moom yàlla suñu boroom xamul loo si jële noppaleku ju am njëriñ ju mel ni nelaw dañ ne keneen ku dut ki ko bind kenn mënuta wax nelaw nii la amee importance wax nañu leen ne woon keroog buñ doon waxtaan ak yéen newoon nañ leen ne am na ñoo xamante ne dañuy defar bërëbu nelawukaay woowu dañuy defar loolu ñuy jëfandikoo jamono bu ñuy waaj a nelaw waaye bërëb bañ koy defee dañ koy taaral toppatoo ko yanjal ko parce que lañ ci war a def moo am importance te nelaw kon xatta nasaraan bi nga xamante ne importance su nelaw ba tax na bërëb bam mu koy defee ci këram daka tuddee chambre d'accoucher waaw bu noonu la alhamdulilah bu dee du noonu nag jàngkatu nasaraani taalube nasaraani na ngeen ma jéggal bu dee yàq naa seeni baat mais ala kulli xaalin lañ ci bëgg a wax mooy néeg ba jëmm doomu aadama bi di làqu ngir mu def kado bi ko yàlla yenkeewal mu doon nelaw importance ba mu am ci dundu doomu aadama bi ak résultat ba mu fay jëlee tax na borom bi subhaanahu wa taala ci alquran ci suratu naba man yàlla wa jaal naa maa leen defal nawmakum nelaw ba ngeen di nelaw subaatan mu doon dallukaay bi nga xamante ne kenn xamut dayo bi nu mu toll ba tax na nelaw boobu am na ñu ko defaral bërëb am na ñu ko defaral palaas am na ñu ko defaral makaan yoo xamante ne képp ku ko fay def dangay ngay fay nga doog dugg def loolu ñu daan nelaw boo ko defee moo xam bés nga fay nelaw moo xam guddi nga fay nelaw waaye boo ci noppee dangay jël sa bagaas daal di jébbal caabi ji moo lekk nga fa waaye nelawaale nga fa moone nekk nga fa ci anam bang fa nekkee waaye buñ la ne nelaw bi da koy fay à part loolu day nekk double fre ba tax na nelaw da di kado nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala mi ko bind jox ko doomu aadama bi di kado mu ne ko dee ko def ndax dafa baax ci yow dafa bokk ci yow moo tax mu ne ñu maa leen defal nelaw mu doon ci fa ngeen di dalloo waaw léegi-léegi médecin yi recommandé ko patient bi ne ko del nelaw dafa ñàkk nelaw amut nelaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na moo ñu baaxee ni ñu la ñu jóge ko def ci kanaaw tuuti rekk ci ay waxtu yu néew tuuti nelaw boobu ñu jóge koo def yonent bi daf ñu ne képp ku ci yeew képp ku yàlla may sens delloo la sa ruux ba nga yeewu ci nelaw woowu na nga sant yàlla mi la baaxee kaddu woowee waaye na nga sant yàlla mi la may occasion ba toll ni nga daldi yeewu waat fekkee beneen bésu àddina encore moone ne keroog am na ñi nga nelawandoor ci guddi bi ñooñu jaaree fa di continuer seeni nelaw ilaa yawmil qiyaama ñooñu duñu musa yeew ci seeni nelaw kon nelaw bi vague nelaw bi ñu mu yóbbaale bu dee yow bokkoo ci vague yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim la fa digal mooy yow boo muccee ci vague ba nelaw bi yóbbaale bu dee bokkoo ci ñi vaggu nelaw yóbbaale yow boo yeewoo nga am occasion ngir dund encore la nga war a tudd sa gémmiñ mooy adkaaru istiqaaz min an nawm adkaaru istiqaaz min an nawm mooy baat ba doomu aadama bi rawatina jullit bi di tudd jamono bu ko yàlla delloowee ruuxam mu war wax alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur set ak cellaay nga ñeel na buur bi tabaraka wa ta'ala xeetu cant yi ñeel nañ ko moom yàlla buur bi subhaanahu wa ndax mooy buur bi nga xamante moo ma delloo sama ruux moo ma may occasion ma dundaat ganaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw te wa ilayhi nushur ci moom lañuy ñuy dellu keroog bu ñu tàqale ko ak dundu àddina si xeetu cant yi yonent bi moo ko baaxee jullit ñi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu di ko sante buur yàlla subhaanahu wa taala jamono bu ñu yenkeewal kado bu toll ni nelaw kon gis nañ ne jullit bi nii la sóoboo nii la tàmbalee bés ba ko yàlla wërsëgal mu di ko dund ba tax na ña yaraw ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa di sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñooñu taabi'una yi kenn ci ñoom di xasanul basri rahimahullah yan na ko buur yàlla yërëm jëmm jooju di xasanul basri moo ñu ne ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi na nga xam na nga ne bési àddina yey ñëw di jaar di jàll di dem moola fi tax a ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne kullama yow yowmun bépp bés ba ñëw jaar jàll boo ko yëgee ak boo ko yëgul boo ko xamee ak boo ko xamul xamal ne zahaba baaduk am na la deñ ci sa dund bi am na la wàññeeku ci sa dund bi bi maanaa xamal ne jaangi gëna jege dee yaa ngi gën a jege sa bàmmeel yaa ngi gëna a sore dund bi kon lii képp ku koy constater ci sa dund képp ku koy sóoraale jamono bi nga nekkee di dund sa taxawaay ci pénc bi day nekk taxawaay ju mucc ayib sa taxawaay ci pénc bi day nekk taxawaay buy amal pinc bi njariñ waaye day amal sa jëmm ji njariñ doo fi nekk di lor nit ñi doo fi nekk di wili pande sekerey nit ñi doo fi nekk di bokk ci groupe toppkaa ya nekk ci réseaux sociaux yi doo fi nekk di tuumal nit ñi doo fi nekk di wuññi suturaay nit ñi ndax boo sóoraalee ne bés bi lépp la fa def lépp li ma fa wax lépp li fa nekkee buy dem da koy yóbbaale te bëgg naa buy dem mu lu rafet lama bëgg mu filmer ko kon doo tabil sa bopp groupe topp kaa ngay topp kaawu nit ñi bu dee nit ñooñu dañoo jàllar beku di topp sa kaa kon mu métti kon mu métti kon bu dee bëggoo kenn topp sa kaa bul topp kaawu nit ñi bu dee bëggoo kenn wilipande sa sutura bul wilipande suturaal nit ñi boo suturaalee nit ñi ñu la boo mayee nit ñi jàmm nit ñi may la jàmm la yonent bi wax bi rek imal ma chet defal lu neex imal ma chet defal li saf waaye nag na xam ne kamaatu diinu tuddaan kamaatu diinu tuddaan waaw xamal ne lépp li nga leble moom ngay fayeeku yaa leble topp kaa dinañu topp sa kaa yaa leble wilipande ayibu nit ñi dinañu wilipande sa ayib yaa leble di tuumaal nit ñi toogal xaar dinañ la tuumaal ba mu saf-sab su boobaa dinga xam ni mu mel moo ne ba xam jar na ko tontu bi mooy diit kon yow mi yàlla yenkeewal nga yeewu ci nelaw sant ko comme nu ñu waxee ñaan ba ñuy wax gannaaw bu ñu jóge ko ci nelaw nga bàyyi xel waxu boroom xam-xam bi di xasanul yi ne bés ya ngay dund moo la fi tax a bàyyi ba tax na bépp bés ba jaar jàll am na lu wàññeeku ci sa dund nga bàyyi xel loolu su ko defee réew mi FM 97 waxtaanu fajar ba fi jaar ñu di ko wéttalanteeg mbokk auditeurs yi ñu fas yéenee leen jox wasiya ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane askanu jullit mi ndénkaane ba yonentu bi dénkaane xeetam ci xadiisu uqbata bun aamir radiyallahu anhu nee qultu yaa rasulallah yow mi yàlla yónni mal ñajaat ana lan mooy mucc uqbata bun aamir sahaaba bi uqbata bun aamir qaal nee na qultu dama ne yaa rasulallah yow mi yàlla yónni mal na jaat ana lan mooy mucc ana lan mooy texe qaal yonent bi ne ko amsik aleyka lisaanak na nga téye sa làmmeñ loolu mu doon tegtal bu njëkk ñaareelu tegtal ba ko yonent bi joxoñal mooy mu ne ko wal yasaaka baytik na sa dëkkuwaay doy yaatuwaay ñetteelu tegtal ba ko yonent bi joxoñal mooy wabki ala xatiatik na nga dugg sa ruq di jooy say bàkkaar di rëccu say bàkkaar gis nga mbokk yi ñetti tegtal ya yonent bi tegtal sahaabi bi di uqbata bun amir radiallahu an ñetti tegtal yooyu buñ ko doon décortiquer di ko taawil andi si taaliqaat dinañu gis ne lépp am solo sallallahu alayhi wa sallam kii suñu borom tabaraka wa taala yónnee ko ci xeet wi li yuxrijahum min adulumaati ila nuur ngir mu jëlee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer moo ne sahaabi bi di uqbata bun amir keroog bu mu sallallahu alayhi wa ana lan mooy texe ana lan mooy mucc sallallahu alayhi wa sallam ne ko texe wala mucc de mooy nga téye sa làmmeñ ci di wax ci deru nit ñi walla di wax ci ñoom lu waxuwul képp ku ci wax ñaaw mucc ku téye sa làmmiñ ci wax ju bon mucc nga waaye képp ku téye sa làmmiñ ci wax bu waxuwul mucc nga loolu di njëlbeenu tegtal ba yonent bi tegtal sahaabi bi di uqbata bun amir radiyallahu an ñu nit ñu di ko baaxee fii ci waxtaanu fajar bay jaar ci réew mi fm 97 yàlla ñu yàlla may dégg topp amin ya rabbal alamin mbokk yi ñaareelu tegtal ba yonentu tegtal sahaabi di uqbata bun amir radiyallahu anhu mooy tegtal ba ko yonentu ne wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay fii de xaw naa fi taxaw tuuti rek jàppal ngant suñu mbokku góor ñi waaye faral suñu mbokku jigéen ñi ci ki yàlla natoo waaye woo xamante ne dëkkuwaayam bi daanaka génn di doxantu ci biti mooy lakk neex ngalawaay nañu bokk géema dund xadisu yenentu bi fum ne ñaareelu tegtal bay tax nit ki mucc mooy ne nala sa dëkkuwaay doy yaatuwaay léegi-léegi nga gis suñu mbokk jigéen ba sama borom kër kat moom du toog ci kër gi ku du toog sa kër nag mooy yange ngi taxawaalu ci biti taxawaalu ci biti nag mënuñoo wax ne lu bon rekk nga fay nekkee waaye la yenentu tontu saxaabi bi ne ko ñaaneeru tegtal ba lay tegtal lay waral nit ku mucc bokk na ci wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay moo xam appartement la moo xam pukus la moo xam pantre la moo xam étage la moo xam barak la donte yooyu amatul mais dañuy joxe misaal rekk ndax daf fi musa am kattanu borom bi ak ni àddina di doxee daanaka amatul waaye ñun fekkee nañ ko fi waaw fekkee nañ ko fi gis nañ ko ak dëkkuwaay nu munti mel ndigam foofu mooy sa dëkkuwaay yaa ko moomal sa bopp moo xam danga kaa luwe moo xam ndigam yow fa ngay wàccee say saak fa ngay paase guddi fa ngay dalloo fa ngay nelawe dëkkuwaay boobu ndegem sa moomeel la nekk soit nga luwe ko walla mu doon sa yëfu bopp na la doy yaatuwaay bu mu musa xat ci yow waaye léegi-léegi tamit nga gisuñu suñu mbokk góor ñi ñay wax ne sama dëkkuwaay mënut yaatu ndax ki ma fa nekkal daf ma fay xatal kon mu nekk benn waxtaan ba ñaar ñi dëkk foofu wara a séq kenn ku nekk mën a yaatal moroomam yow sama mbokk góor na yaatal soxna si dëkkuwaay ba leen yàlla boole waaye yow sama jigéen yow mi ànd man ndax man yal naa àndal na nga yaatalal sama doomu ndey dëkkuwaay ba leen yàlla boole ngeen dëkk fa su ko defee sama doomu ndey di génn di dem taxawaalu waaye yow it na nga yaatalal kër gi ngir kila la yàlla booleel mu doon suñu soxna ñu doon suñu way juru doom yi ñu yaatal leen dikkuwaay bi su ko defee ñu mucc ñamit ñu mucc njoboot yi daldi mucc ndax sahaabi yi ba laajoon yonent bi mu ne ko ana mooy màndargaay mucc ana mooy màndargaay texe njëlbeen conseil ba ka yonent bi dénk mooy que na nga sa làmmiñ ci wax yu ñaaw ak li ko niroo ñaareel tegtal ba ko yenentu bi jox kom dénkaane moo ne sa dëkkuwaay na la doy yaatuwaay bul xatal sa bopp sa dëkkuwaay waaye bal bu la soxna si tamit xatal ci dëkkuwaay ba ngeen bokk dëkk waaye yowit bul xatal soxna si ci dëkkuwaay ba leen yàlla boole dëkk na ku nekk am esprit de dépassement yaatalal ki nga bokkal dëkk ci dëkkuwaay ba yàlla wërsëgal ñetteel bi la yonent bi dénk saxaabi bi mooy ne wa bi atik nanga toog di fàtteleku di xelaat bàkkaari ya def ci njuumte ak ci teyef bàkkaar ya nga sëq nit ñi walla bàkkaar ya nga def jëmale ko ci nit ñi te gisatoo leen ñii faatu nañu ñii tukki nañu ñii dootoo leen gis ilaa mi diin te danga leen war a jéggalu te da nga war a jéggal da nga sàkku njéggal si ñoom anañu ku dee nooy sàkku njéggal ci moom ku tukki xamoo fu mu dem kii disparaître na réer na xamuloo nouvelle xamuloo fu mu ne gis nga koy xalaat lii ba tax ngay jooy bàkkaar ya nga def yàlla nar la si duma est du la si jéggal est-ce que bu la si jéggalee est-ce dina la jéggal sax est-ce que ce que est nga jël loolu def ko sa occupation loolu doy la njaxle moo tax mu ne ko ñetteelu tegtal ba ma lay tegtal mooy na la sa baakaar doy kaawtiif na nga toog di jooy say bàkkaar di naqarlu ci sa biir xol bàkkaar ya nga nekkee woon di ko jëf ay yàlla boo ma jéggalul ay man fu may jëm ay yàlla yàlla nga ma jéggal nga daal di jooy nga daal di naqaru nga am naqar bu toll nii day déggu ci yow bi sa but yi daal di taa ay yàlla man bu ma tollu woon nii la ma doon def man sa xaw ma la ma ko doon def loo ay yàlla ba ma nekkoon service nangam la ma doon def la ma ko doon def loo ay yàlla yàlla nga ma jéggal ay yàlla tuub naa yàlla nga ma jéggal la ma doon jëflanteeg nit ñi di leen nax la ma doon jëflanteeg nit ñi di leen toroxal la ma doon jëflanteeg nit ñi di leen noot di leen jaay doole te kenn amul sañ-sañ weddi la ko wax wala la ma koy jëfloo i mangi maa ngi tuub yàlla nga ma jéggal lii bu dee dànka programme ci sa agenda dund bi dootoo fi nekk di wax lu waxuwul dootoo fi nekk di taxawaalu ci mbedd waaye dootoo fi nekk di jëf lañ lay jéppi ndax lii rekk doy na programme mu dund doomu aadama moo tax ba saxaabi bi laajee yonent bi sallallahu maa bëgg nga tegtal ma ana lan muy mucc ana lan mooy texe wan yoon lay jaar bi mucc fitnay àddina anna wan yoon lay jaar bi suubu ci yoonu texe yonent bi ne ko de ñett yi ma bëgg a joxoñal nii boo ci tënkoo sa bopp texee nga mucc nga bu ci jiitu yonent bi tegtal ko mu ne ko am sik alayka lisaanak na nga téye sa làmmiñ ci wax yu ñaaw ak yi ka nuro waaw bu ñu làmmiñ nag ñu ne waxukaay waaye tamit ñu ne lekkukaay dafay génn comme kàddu na doon lu yiw la ñaaw bu mu mus génn ci sa làmmiñ noonu ngay déggee ne lépp luy tàbbi ci sa gémmiñ làmmiñ bi di sentir cafka bi na doon lu lew nga amee ko ci amin bu lew bu dee naan la bu dee lu ñuy lekk la na nekk lu lew te dagan amiñ bi nekk faggu tef bu yiw su ko defee soobu nga ci yoonu texe lii mooy la musal ci fitnay dund ñaareelu tegtal ba ko bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam mooy da ko ne wali yasaaka baytik wali yasaaka baytik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay na mu xat-xat géema la xëj foofu ki nga fa nekkal na ngeen xajoo ci dëkkuwaay bi kenn ku nekk ci yéen ñaar yaatalal moromam ngir keneen ki bañ a dem taxawaalu ci mbedd ndax taxawaalukat ci mbedd yi ci grand place yi ah wóorul boo gisut di wax boo waxul gisuloo dinga dégg te yooyu noonu yëpp ngay gis walla nga di ko dégg walla nga di ko wax du doon la nga xamante ne mooy la lay neex walla la lay tax a mucc ba tax na boo toggee sa kër nga nekk sa dëkkuwaay gisoo waxoo yëgoo tinoo amaana loolu mun naa doon sabab nga mucc bi léegi sallallahu alayhi wa sallam daal di tegtal sahaabi bi ko doon laaj ana lan mooy texe wala ana lan mooy mucc ñetteelu ndénkaane ba ko bi jox kom ndénkaane mu ne ko wabki ala xati atik na sa dëkkuwaay doy yaatuwaay waaye na nga doon ki nga xamante ne da toog di jooy say bàkkaar ya nga defoon di jooy say bàkkaar ya nga xamante ne mooy lala rëcc su ko defee nga doon ki koy naqarlu ba ci kanamu yàlla nga doon kuy toog di jooy say bàkkaar yooyu nga xamante ne bu la ko yàlla jéggalul bu la ko téyee doo mucc te doo texe lii képp ku koy sóoraale ci sa dund dina la doy programme mbokk yi nasalullaha jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa si nañ fu ñu war a yëkkatee jotaay bi waxtaan bi jeexul dañoo fas yéene jébbal bërëb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa an yaxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hi wa barakatuhu hi wa barakatuhu hi wa barakatuhu